wa ci teewaayu kilifa diine yu bare bari lañ doon amal CRD bi ca Louga jëm si waajtaayu màggal Mbàkke Kajoor 2022 war a yemook aljuma ñaar fukki fan ak ñett si weeru décembre bi la ñu nekk ñu doon waxtaane lépp lu jëm si waajtaayu màggal gi ak naka la ñu mën a def ba mu mucc ayib lool waral itam teewaayu mbooleem chef de service yi nekk si région de Diourbel et Louga kenn ku nekk itam jël ay engagement wam gaaxal ko si kanamu gouverneur di xamle aussi ni danañu jëm seen kemtulaay kàttan ba màggal gi mucc ayib lool Serigne Cheikh Thioro Mbacke mi di njiital comité d'organisation bu màggal Mbacke Kajoor yëkkati na fa ay kàddu jëm ci xamle solos màggal gi ak li waral ñuy amal bés bu tedd bi euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu monsieur le maa ngi ànd ak délégation bi nga xam ni ñi ci ëpp ñëpp samay kilifa ndax samay mag su ma jëlee Serigne Bara mu sëñ Abdul Karim xalifa sëñ Abdul Karim sëriñ Xaadim xalifa sëñ Moussaïn Baara sëriñ Baara Lahat sëriñ Sidi Ahmed mu sëñ Abdul Aziz Baara dinañ mën a yóbbaale taalibe yëpp ndax ñëpp tudd nañ leen fii lim nañ ñu ñëw fii ci turu sëriñ Moustapha mi nga xam ni mooy xalif cheikh Mouhamadul Amin Baara ibnu Xaadimu Rasul nangu sax ko wax xalif jëw li ñu cheikh Mouhamadul Amin Baara tudde boppam ci kilifteef Cheikh Baye Ahmadou Makhtar mi kilifa kër gi ak ci ndigal Serigne Touba Cheikh Modou Mountakha ñuy ñaan suñu borom yàggal ko fi te ko ak wér ma ñëw ci li waral bés bii di màggalu Mbàkke Kajoor ndax dafa lié Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak waajurum Cheikhul Khadim dafa lié Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak taalibe yi ndax gis ngeen suñu borom. subhanahu wa taala bi mu tànnee sayiduna muhammadin alayhi salaatu wasalaam yónni ko dafa wax ci alquran biñ demee ba julli ci mat ab lim dana yaa ayuha allazina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te ngeen wut wasila seen diggante ak seen borom wasila nag mooy jaam bi lu mën a aw ba àgg ci boromam loolu wasila la waaye liñ ci gën a xam mooy nit koo xam ni moo la gën a xam yàlla gën la koo ragal man laa teete ba nga àgg ca ci loolu la saxaaba yëpp ñëw ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam ni ko ñu fas yéene waaye dañoo bëgg suñu jébbaloo nga warlul ñu aljanna ci njébbal gi nga xam ñu koy jébbalu ci yow yonent bi wax leen ni leen àjjana de moom moo ko sawara moom moo ko suñu borom moo ko moom waaye bi ñu jébbu la euh, benn aaya wàcc ngir dëggal loolu saxaaba yi bëgg inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna yàlla ci boppam nangu nañ jébbalu gi ngeen jaayante ak yonente bi waaye dina leen ko fay aljanna mu ne laqad radiyallahu anil muminina is yubayiunaka tata shajarati ron garab gii ñu ñëw jaayante ak yow yàlla gërëm na ko suñu borom jàppal na leen ko nangul na leen ko yoonu jaayante boobu nag moom la ko tedd ki Ahmadu Bamba doon yeesal bi mu jógee eh, Saalum ci Maba Jaxu Ba ànd ak waajuram ñu ñëw fii ci Pataar bi sanc fi ba Momar Anta Sali jóge fi sanc Mbàkke Kajoor en 1880 lañ sanc Mbàkke Kajoor bi mu sancee Mbàkke Kajoor ku tedd ki nekk ca daara ja ànd ak taalibe yëpp di jàngale di liggéeyal waajuram doon ko jàppale ci lépp ba 80 1883 ci la Momar Anta Sali génn àddina sëriñ bi jël ko yóbbu ko deqale denc ko daal di koy wut ca daara ja di def na waajuram doon def ci jàngale ak tarbiya ba Sayyiduna Muhammad moom ku tedd ki moo xëy benn bis ni shafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa bi xawlihi rabbi asxaabaka bil himmati wala tudabi bi tarsufaqat ni moom sëñ ku tedd ki moo ko bind moom Ahmadou Bamba ni yonent bi alayhi salaatu moom feeñu tey nee na saxaaba yi na yonent bi àndawoon ak saxaaba ya ak yoon moom leen awale woon naa ci ànd ak yéen man araada maa arad naa nag fal ya saj bi seydinaa képp koo xam ne bëgg nga loola royal ci man dox sama doxi waaye am njàngaleem kese dootuma ci yem loola mooy yoonu jaayante jaayante mooy joxe sa bopp te yàlla tax muy jébbalu moo waral sëriñ bi yorul ab tariixa mosu koo wax mosu koo woote mosu koo bind yonente bi ali lii yeesal la sunna si mu yoroon moom la ko tedd ki ñëw di ko yeesal lil Mustafa nawaytuma yu jaddidu sunnatawul xaraa wa inni ahmadu diinun siwa islaami laa yuhmadu indal ilaahi wa nu jàddidu sunna Seydina Muhammad alayhi salaam da ko teg doon si yeesal bi mu waxee loolu monsieur le gouverneur am na booba ñeent fukki góor yàlla yu fa nekk yoo xam dañoo jaayante ak Sëriñ Tuubaa ci bis boobu euh, moo tax may indi histoire bi bi mu jaayante jaayanteeg moom sëñ bi am ab diir jëli benn baayam sëñ Cheikh Ibrahima Mbacké jox ko Mbacké Kajoor mu nekk fa ay waa këram lañu ñu nekkal ànd ak ñun ñii suñu ginnaaw bi sëñ Bara yi wate samp kër itam foofu la ko sëñ Tuubaa indi bi sëñ bi eh, defee loolu ba noppi daal di ñibbi Mbàkke ba war Mouhamadou Bara bi nga xam ne moo jur Cheikh Moustapha jëli ko Daaru Salaam indi ko Touba ñooñu ma wax ni dañoo jaayante rek ak sëriñ bi ñu ngi ànd ak moom keroog bi Cheikh Mouhamadou Bara feeñee àddina kii ñuy fàttaliku 1891 ci Touba menn moom rek moo fi ganee àddina ci doomu sëñ Touba yu góor yi sëñ Touba dafa woo ñooñu ñëpp ba ñu ñëw mu ni leen li ngeen doon wut ci seen borom lépp gan gi ñëw bi indi na leen ko bis boobu la ñuy fàttaliku monsieur le gouverneur moo tax bu njëkkoon dañ daan fàttaliku bis bi mu génnee àddina waaye bi Cheikh Saliou ñëwee sëñ Barlaat mi fekke na ko mu wax Cheikh Sidi Makhtar ni ko bisub naqar bi bisub mbégte bis bi nga xam ne ci la a Cheikh Mouhamadul Amin Bara ganee àddina day bisu ndimbal di bisu taw féex di bisu faj aajo kon nañ koy fàttaliku bis boobu la fàttaliku mooy màggalu Jumaadal Oula ndax Jumaadal Oula mooy weeru olof yi ci la Cheikh Mouhamadul Bara ganee àddina moo tax sëriñ Moustapha nag yabal ñu boo gisee bu mënul ñëwal boppam moo ñëwal boppam waaye kenn ku nekk ci mbooloo mii mën na koo wutu doy ko doy ko ko moo tax ñu boole ñu ak ñun nekkul man maa jiite waaye ñun ñëpp ñoo ko mas di ànd nekk nii moo tax ñu ñëw ci seen wet fas yéene ànd ak yéen ñu waxtaane li nga xam ni mooy wax baaxal màggal gi ñu sant yàlla ci liñ dégg yëpp nag ndax gouverneur buy amal bu fi nekkoon ak préfet mënut a weesu lii kon sant nañ leen gërëm nañ leen ci yi nga ak li nga xam ne jot nañ ko fee dégg ndax wax dëgg yàlla li ma wax ci njàlbeen rek lépp mun tamatale matale ma di xamal ni muy AG route muy euh, commissariat alimentaire amul ñu dara lu naqari ci yéen àddina moo baaxul lépp mënut ta bokk jàpp waaye dañuy gën a góor góor rek di soññante ci suñ biir waaye sant nañ bu baax ci turu njaboot gi sant nañ bu baax ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax nii ngeen ko taxawee kenn bu nekk ci yéen feeñal na ni yéen dafa mel ni yéen ñu ëpp yéen sax ci màggal bi te mosuñu jaam luñ naqari kon ñu ngi sant bu baax monsieur le gouverneur di la ko seereel di sant ñi nga xam dañoo nekk ak ñoom ci département ak ak bi muy sous préfet Moussa wax dëgg yàlla su màggal gi see ñoom ñoo ñuy woo sëriñ bi manqué mbaa yi def nañu lii di ñëw déplacé ñëw guddi ak bëccëg kon loolu ñu leen ko seereel di la sant bu baax di sant seen i kilifa tam la ci ministre de l'intérieur premier ministre bi ci président Macky Sall ndax dafa am kóllëre digganteem ak njabootu Cheikh Mouhamadou Bara te kóllëre gi sàmm na ko te dañuy wéy di ko sàmmal di ko ñaanal li nga xam ni moom la ko Cheikh Mouhamadou Cheikh euh, Seydi Makhtar daan woo ñaanal mooy ndimbalu yàlla suñu borom ndimbal soo ko amee doo ñàkk dara ndax loo song di nga ko daaneel loolu song lul noonu dina daanoo kon ñu ngi koy ñaanal di sant bu baax di leen gërëm euh, di sant di ñaan yàlla ci beneen bis bi yàlla dafa ñu jàmm ci réew mi ndax jàmm mooy suñu am-am jàmm mooy li nga xam ne soo ko amee ñàkkoo dara ku ko amul mënoo am dara lu baax wata nag wallaahu yad'u ila daari salaam suñu borom day woote jàmm suñu boroom jàmm la bëgg réew mi réewu jàmm la ma ngi ko fi noppi buñ nangu mukk kenn diñ ko yàqal ci wax wala jëf wala comportement réew mi réewu jàmm la jàmm mooy suñu koom-koom réew moo xam ni soo bëggee tukki doo taxaw fenn lu ma 30 000 te gisul la yow réew moo xam ni boo fa nekkee doo dox mukk lu ma 3 kilomètres te gisoo foo fajoo réew moo xam ne boo fa nekkee soo bëggee jàng doo gestu mukk te gisoo foo jànge moomu réew boo xam ne boo tëddee di ko suñu baara la euh, waxee léegi boo tëddee nelaw ba yàndoor ndax sécurité moomu réew réewu jàmm la réew moo xam ni yaakaar naa fonctionnaire yi ngi may dégg mosu am arriéré de salaire mosu fay am donc kon suñu réew problème buñ ko fi andi buñ nag buñ ko fi andi loolu la ñuy ñaan ci barke bis di sant bu baax di gërëm Alaaji Njaaja yow man ñii seenub jaam la seenub taalibe la sëñ si leen koy wax léegi bi ñu nekkee xale boobu maa ngi Cees di jàng dama daan sol yor sama yére ñëw ci moom ñu weccoo ay yére xam nga ko jamono demewul nii léeg-léeg ma ñu weccoo ba yàgg man ñu ni ko dama jaxal ma sama yére wecceetu ma waaw yooyu yëpp ñu noonu la ñu nekkee koo gis kenn ci ñun gis nga ñëpp kon El jee Madiaye ñu ngi lay sant di la gërëm di sant sëñ Abdou Aziz di sant mbooloo bi yëpp di sant la presse ñoom ñu leen a fay ndax ñii nii lañuy ñuy ànd ak ñun ci tàmbali ci CD CLD ba ba ca CDD ba ba ci CRD monsieur le gouverneur lépp loo xam ne lu rafet la ñu génne ko lépp loo xam ni xëy na sax lu ñaaw du ci am waaye rek sant leen gërëm leen bu baax di leen sant ci seen taxawaay yi ànd ngeen xam ne ànd ngeen ko ñu ñaan yàlla suñu borom moo la ñu dimbali sargal le maire ñu ngi lay ci taxawaay euh, bi yàgg sama nu bi loolu la gars yi bañ sàmb ak tin donc wala taxawaay bi rafet na ak Ousmane Diouf yéen ñëpp ñu ngi ànd ak ci suñu wet ci wàllu organisation bi kon sant nañu gërëm bu baax monsieur le gouverneur en tout cas sant nañu gërëm nañu ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bu ñëwee fii déwén bu la fekk nañ la fekk nga def gouverneur ah nañ la fekk nga def gouverneur barakatulah alayhi wa salaam sëñ Moussa sant nañ commandant yi tam ma nga nekk capitaine capitaine yi nekk ay colonel muy dem rek incha allah yéen ñëpp yàlla